ay ci jërëjëf euh, jaajëf Abdoulaye Diop euh, jërëjëf euh, Yacine Pouy jaajëf Yacine fa mel ni tey kii bee ko jàpp ndeysaan ndax vacciné wu hmm. vaccin bee ko jàpp yaas xool ko hmm, yasin yaa ngi ci jàmm ndeysaan mu ngi ne tekk de ndeysaan ñun ñu ngi xaar suñu tour ñun ñu ngi xaar suñu tour ay ca jërë ngeen jëf auditeurs yeeg internautes yi nga xam ni ñi ngi bayyi xel RFM euh, la radio leader di leen kontaane bu baax baax di bekk ci suñu partenaire yi nga xamni ñom lañuy andal euh, bokku na ci Sabu Faniko CCPS jërë ngeen jëf euh, wa Kër Serigne Touba Fall et frère ngeen jëf Agro Safi nga xamni ñoo indil Safir lak ak Safir. tolka parfum yu neex yoy tamit ñu ngi leen di bu baax seen wéef yéen tamit jaajëf transfert bi nga xamni mo gën Kabirex waxna ni mom la dipé centre commercial bu jëm ci walu électroménager ñu ngi leen di kontaane bu baax ci gungé gi nga xam da ngeen ñukoy koy gunge def euh ki kal la passe partout. maa ngi ziar maa ngi lay delloo ziar. mu ngi dox. mi ngi sant bu baax baax. yépp jàmm. waaw ñu doxal bu ndaw rek. def ak coono yi. ñu ngi ci ko am di and ak mom rek. wa kër gaag wa koñ ba. ñepp ngi ciy alhamdullilah nonu baax na. ñu ngi lay ziaré di ziaré ban. di ziaré auditeur yi yeeg euh, internet yi. di nuyu sénégalais fepp fu ñu mën nekk ci réew mek ci bitim réew di nuyu sama gaay wa wa waa kaaru fajar gi inspecteur bon général jaajëf waay ban ziar la noo yeew xam nga dafa am waaj yi nekk ci inter eh, ci internet bi naan tey nii laa eewoo tey hmm. yow tey noo yeewoo tey sant Serigne Touba rek <laughs> comme d'habitude waaw sant rek waaw di sant yàlla di sant yonent bi day sant Serigne Touba bu wér waaw waaw di sant wér tey tey ñaan neen ñëpp sant Euh, ab jullit dafa war a sant doomu aadama dafa war a sant kon boog di ñaanal ñëpp jàmm rek yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci biir kër yi def ko ci xel yi xol yi jàmm yàlla muy borom jàmm yàlla yàlla may jàmm ñu dugg ci koor geeg jàmm génn ci ak jàmm nekk ci leneen amiin su ko defee poos yi mën a am dara xel yi mën a am dara xol yi mën a am dara macha allah waaw nga bës bouton mu dox macha allah jaajëf tey ma fépp suus ba foo jógi rek fekk fa soos waaw loolu am na solo maa ngi jaale waa Pire nag dafa am kilifa gu fa wàcc liggéey ñu naan ko sunu bàyyi njoogu mbaay hmm. di ko jaal waa dëkk ba yëpp moom moo doon nodd ci jumaa ji après doon sunu sunu waajur wu yàgg ci ñun daal waaw ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di ko jaal waa Pire yëpp waaw ban ñun tamit am nañ suñu benn euh, mën naa ni suñu sœur la wala suñu waay la mais <laughs> mhm. dafa faatu ah. dafa mhm. gaañu gaañu bu bu bu gaaw ki ci internet crise cardiaque bi laay ah, gis naa sama soxna di ko métti lu xarja si soxo bilaay bilaay xarja si soxo ñu ngi ciy dégg lu nekk nag mais xam hmm. nga nit bu faatoo hmm. nunu muur rek euh, ko seelal ko daal di koy yóbbu ñu ngi ciy dégg ne dañ ko hmm. téye ci ay liggéey lu ne nga ciy dégg ñu ngi ñaan yàlla daal yàlla na ko yàlla ko yàlla na réccu lépp rek loo xam ne mu ngi koy def ci àdduna amiin amiin amiin koy jaale seen waa kër yëpp ma nga dëkk Louga maa ngi koy jaale waa Louga ak euh, ñoom Sabel ah, ñoom fami Pama ñi xarit nga xam waaw seen way la woon mm-hmm. donc ñom ñëpp ñu ngi koy jaar bu baax a baax a baax yal na yërëm ko amin amin amiin Adja Cissokho lu bes ci réew mi ah lu bes kay moy fiñ ñu toll lamb gi nga xamni signature contrat la woon modlo Ama ban sama lamb ji samedi na le 10 fele ci ci Sidi ga jaxate kabuyeer yi <laughs> drapeau Ndoye Bane ca Thiès ah, de déedéet ñaari mbeur yi ci wara sama lamb ji gën reuy lamb yoyu ñaari mbeur yi ci wara a doñ la di la mun maîtriser wo ñaari mbeur yi ci wara a ni ah, sa lamb gën reuy wa mo waaw reuy de bëgg na ma bokk eh? bi sama làmba a rëy man du man man Aba. Ah, ñaari mbër Aba. Hmm? boo bëggee mën naa jox ay sponsor CCPS dama leen koy jox. waaw. jox leen ak Safilak ak Safilak. non Safilak Dolka ak Safir dama leen koy jox. jox leen euh, seen wave. dama leen koy jox. waa kër Sëñ Touba xam nga. ñoo indi gaaw vite fait bi. <laughs> jox leen Camirex ñëpp mhm. dama jox comme sponsor. man sama ñaari mbër yaa ngi Safi Dieng ak Ousmane Gandigal i Ousmane Gandigal. waaw Ousmane Ousmane Gandigal. ak Safi bàyyi fu ñu bëree bàyyi rek ma yuuxu mel ni comme làmb juree waaye baan waxal ci xalaas gi ñun dañoo sonn waa ji nee na dama sonn xanaa da ngaa naan butéel bi <laughs> am nañ activité c'est Aba laaj Aba noo yeewoo tey man xaar noppi sax parce man yooyu yooyu du mbirum du mbirum xale waa baa ma noppi rek loolal la kii nee na dafa sonn. <laughs> nañ dem ah aba mhm. démb ñu ko doon junj maag passeport. waaw te nit ñi dem biñ ko jundee aba ah nit ñi dafa mel dafa mel dund xalaas bi te xalaas bi jàllagul. Hmm, surtout. Hmm. ah seetlu nga lool. Hmm. xale bu jigéen bii di wax aba ah nit normal la nit ko normal pour nit ñi comprendre nit la ko normal comme yow dégg lu man. xëy di liggéey di wàcc di di liggéey di wacc am métier di fayé ko wéru wu dee. mais day jéki jéki dafa am lu né ci mom loo xam ne daf koy daaneel aba ah su ko kooku su ko loolu daanelee. Mhm. day daanu carrément comme nit nit ñi ni daanoo ay rab daanu. Ah. après nelaw. ña fa nekk fekkee daanu ga quelque temps après dañuy gis ni moom day jóg. Mhm. jëmm ji mooy jóg. ñu gis ni day màgget. kanam gi changé. te ko loolee di jóg màgget kanam gi changé jëmmi nit ki daanu lay yore. faj na yaayam faj pàppaam faj ay dëkkandoom faj ay sëram faj ñu baree baree bari ba fu mu dem dan naan ma nga nee mhm. léegi nag su leen fajee ba pare maanaam tey su gisee amee ko feebar mu jóg faj koo pare su daanu bi see reesee day ma day maanaam affaire bi xale bu jigéen bi di wax affaire bi ci ay nelaw la koy la ko la koy dikkee mais dëkkandoo yi ñi mu bokkal kër ay yaayam ay papaam ay mbokkam ak ñëpp ñoom ñoo koy nettali li mu li li li li mu def te ci faj gi da ciy boole defar ay garab di joxe day joxe day defar ay garab di joxe te du fayee ko teg ci léegi nag bi ñu ko waxee bi mu waxee ak passeport ba pare ñun man dañoo bëgg lu leer man ko soxna si ma man ko ñun ci lu leer la dox mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. nett li nga lii waa koo faj ñan nga ñi nga faj nañ wax ñooña wax léegi nag xale bu jigéen bi nga xam ne moo feebar rab bi dugg ko moom mu waxal bopp moo njëkk wax moo njëkk a wax damay daanu damay daanu daanu yu jël yu metti sax te su ma daanoo su ma yewoo dañ may wax rek danga daanu woon léegi nag ma doon bëgg ku ma ci dimbali rek parce que affaire bi dafay génn depuis daaw ba ren mu ngi fii day génn su génn si si man nee nañu lay ñëw su ma yeewoo daal dañ may expliquer ni ma def na lii def na lii dëgg la nag si sama famille ñu bari ñu feebaroon faj na leen affaire bi faj na leen ak ñu bokkul sama famille sax mais man dama bëgg mu génn sama vie ma mën a dund parce que damay liggéey te affaire courant lay liggéey ku ne lekk lay daanoo ma doon bëgg ku ma si jàppale wala ku ma booleel ko man nag euh, léegi waaw la la préféré waaw ñu teg ni mu faj ba noppi voilà doog koo teg moom voilà parce que dañu waroon a laal voix bi waaw loolu ñu ngi ciy jégalu. Euh, témoin bi la ñuy teg déglu. Euh, dama fekkee lépp yàlla def ñuy waxtaan ba ñu demee yàlla boole ñoo fajkat fajkat bi yàlla déggale ñoo moom bi mu koy faj di ko defal traitement traitement bu dur traitement bu metti bi nga xamante ni wax dëgg fa yàlla tey moment yooyu ku ne sa xol tooyoon na ku ne tiitoon nga ci moom franchement yàlla rek ma tiim te maa ngi ci sama bàmmeel man ñii di wax ak yow j'avais treize fibromes ba ma demee ñu ni ma treize fibromes nga am ma def traitement mu may jox ay garab moo ñu koy toggal dañuy jënd et mu ñëw togg ñu assister yépp moom suy ñëw jëmmu kee lay ñëwee mais melokaanam moom moo ñu koy wax dañuy toog wax dëgg fa yàlla moo ñuy waar dañu delloo si yàlla def bi def traitement bi keroog ba mu ma joxee traitement bi ma koy jël ma koy jël ma dellu hôpital moom mu ne ma demal ba ma demee hôpital gynéco bi xool xool defal ma écho ab abdominal et tout defal ma yëpp sonde yëpp mais benn la gis ku amoon treize mu ne benn bu ndaw kese kese moo la dese fa jaaxle keroog sama jëkkëru mag bi mu feebaree ñëw war a dugg bloc ñu war ko opérer am lu ma jox ma dem jox ko mu naan ba tey duggul bloc deux jours la fa def ñu ñu gisatuñu feebar ndax affaire da leen yëpp mu génn. papam aussi tamit dafa defoon AVC ba gémmin bi weng ba ñu yóbbu ko dakaar bi mu ñëwee sama yaay wax ko wax ko ko si guddi gi la dem Dakar seeti paa bi matul une semaine la paa bi ñibbisiwaat ak ay ndox bu mu ko joxee lañ ko naan par la suite affaire yi mi ngi ne alhamdulilah sama yaay aussi tamit moom si boppam yaayam dafa amoon hypertendu la woon AVC la amoon moom ci boppam moom ki affaire bi nekk dafa jaaxle woon ci yaayam ndax yaayam daawul toog chaque mois te duñ ko yóbbu hôpital mais depuis mu ñëwee ba tey faj yaayam yaayam macha allah dafa rajeunir et ay sëram aussi da leen jàppale ay problème yi nga xamante ni ñoom amoon nañ ko moom ci wàll boppam mais keroog bu mu ñëwee dafa lijjanti problème boobu noonu jox leen ko. sama sœur ak ñeneen ak ñeneen tey bu gisoon tey jii dara nar la dar moom day fànq loolu noonu day ñëw résoudre ko jox la dara nga utiliser ko affaire bi fànq am ñi nga xamante ni dañuy dañuy feebar ba sonn moom mooy ñëw fànq feebar bi am na ñi nga xamante ni dañuy war a def sax accident man sama sama doomu jëkkër sama doomu jëkkër dafa naroon dafa dafa demoon loxo bi damm mais après mu nar a génn oto fëlk mais ci guddi gi la ñëw

narumu woon sax toog fi tey bay mën di témoin mais gannaaw yàlla ak yonent bi ndax tey jii moom moo nangu de moom moo nangu ndax bu doon man mii tey jii hmm, du ma ni du ma nangu waaye dana jafe de waaye moom moo nangu ba fii tamit dëgg la ndax doomu aadama tamit dinañu jóg li ci moom day def te yàlla tax laajul un franc fifteen malien mais doomu aadama yi ñoo ko mayul jàmm dañuy wax lu nekk sëriñ laak et tout affaire yooyu noonu te xam nga loolu neexul neexul dëgg la tamit dafa soxla vieux ndax ku ne da ngay ci sa bopp dafa war a dund parce que dafa am ñu ko bëgg dafa am ñu ko bëgg et dëgg la ndax dëgg tamit yàllaa ko moom man tamit duma gis ni sama intérêt rek ba tax aussi tamit nga bañ a sóor ndax doomu aadama yi tamit day dem ci dëj ñu koy dànqantalee li ci moom day génn ñu koy lii mu mu gêné wu mënatul dem nag fenn parce que doomu aadama yi moo tax village nag moom waxaaleetuñu waxam ndax bu fa demee sax dangay gis kër ga day fees dell dell dell nit bu rombee ci mbedd yi et lu nekk ñuy wax euh, daf ñu jàppale daf ñu jàppale jàppale jàppale macha allah tamit wax na dëgg ndax nit tamit bu soxlaa boppam dañ koy jàppale rek man moom du ma ñàkk bañ a témoin nit bu la defalee nit bu la defalee nit bu la defalee bu la soxlaa àndal ak moom affaire bi bu ñëwee moom waxinam day changé moom góor la xam nga góor la léegi nag moom jëm kii ñun jëmm bi la nul gis mais voiwam day day day ñëw voix moom en ki nekk ki ci moom voiwam mooy ñëw voix bi mu yor moom mooy ñëw mais jëm melokaan bi lañ dul gis moom moo ñuy décrire melokaan bi moo naan tey nii laa ñëwee wala nee laa wala petax wala leneen moom koy wax mais ñun mais day changer parce que parfois day mage du du mën dem ñun ñoo koy pour mu mën parce que moom mag la moom mag la loolu kanam gi day kanam du indi kanamu ki ki mu ki mu dugg ki du ko indi bët yi aussi day changé day changé mais jëmm ki muy dugg ki mooy ñëw jëmmam mooy ñëw comme man tey sama jëmm tey mooy présent mais li ci biir moom moo nu koy wax rek. xalaas. Hmm. dégg nga de kii nii. Mhm. moo dund xale bu moo dund ak femme bi loolu. Mhm. et puis nit ñi comprendre que ni moom. li muy dund neexu ko bugg ko dafay liggéey di fayee ko weeru dee dafa am bëgg am jëkkër am sëyi comme nit ku normal mhm. waaye di tëdd di nelaw am luy génn ci yow yor sa jënnu léeg-léeg mu soppaliku nekk jaan léeg-léeg mu nekk pitax nekk moom moo leen di wax ni tey nii melokaan bi laa ñëwee mhm. di faj ay nit yooyu nee na moom loolu neexu ko bugg ko li ne ci moom bugg ko parce que am na ñu bari ñu ma woo démb naan ma boole maag moom moo faj maag yu kenn xamul non kii ñëwul pour ñu boole ko kenn pour mu faj kenn mm. dafa ñëw pour nit ku ko mën a faj tey déglu affaire bi mu faju lii génn ci moom mu mën a dund dund normal n'est-ce pas loolu la loolu te te te aussi ñu rappel moom dafa amoon rab mhm. demoon di faju ci benn maire mhm. maire bi faj ko ba rab bi maanaam wëlbatiku nekk ku baax ak nekk ak moom mm. di ko fajal di ko fajal maire ba dafa dem ba mujj gi moom fa muy fajee day fees dell dell dell dell bayen saa dañ koy woo sax moom mu ñëw ci maire bi di fajal maire bi. fajal maire di fajal seen waa kër ak yaayam yaayam ci boppam dafa amoon AVC. waaw moom moo ko faj yaayam bi ko jur yaay sax wax na mais xam naa ne peut-être du fi xaj mais yaay ji wax na ba ne doom ji ci boppam moom moo ko faj. léegi doom ji élément bi ñu tegoon sànq. Ah. ki feebar abaa ah da ngaa tiit xanaa. dafay déglu. Ah. damay déglu attentivement. déglu an su laay jóg pare. mais nag mais mais nag mais nag baan. Mhm. baan yi bari na de démb. démb rek am na ku ñu ci contacté. déglu déglu ko. ñëw damay daanu damay daan daanu yu métti jël yu métti sax te su ma daanoo su ma yeewoo rek may wax rek dama daanu woon léegi nag moo doon bëgg ku ma si dimbali rek parce que affaire bi dafay génn depuis daaw mu ngi fii day génn su génn si si man nee nañu lay ñëw su ma yeewoo daal dañ may ni ma def na lii def na lii dëgg la nag. si sama famille ñu bari ñu feebaroon faj na leen affaire bi faj na leen ak ñu bokkul sama famille sax may man dama bëgg mu génn sama vie ma mëna dund parce que damay liggéey te affaire courant lay liggéey ku ne la laay daanu ma doon bëgg ku ma si jàppale wala ku ma booleel koo xamante dina ma mëna a faj génneel ma rab bi si man ma mëna nekk si jàmm parce que pour le moment nii sonn naa trop ilaahi sonn naa te suñu famille lu leen neex rek mo asa benek si may man ne ko mapaska na yero mo nila ko ni di ba kuni kinyo di ki asa da may met sa may yaware ni tali mo tara do mas niya bug na na bugan di ko haman to ni mo ka mo na fat gen di mo li mare gen jo mo ni ro pas sering ni ne siya ko na ma la fat Parfa deng la johni ma sering sumo wa sering go, mun ma fana no, sumo yewo, sumo yewo, sumo sumo ko wa, ma sonna ci mënuma la faj xam naa ne pour ma jox la sama sœur bi mu expliqué la mooy gën a parce que moom man damay nelaw moom moom su man damay nelaw duma yeewu sama jëmm lay nekk daal mais nee beneen manière lay ñëwee comme tey nee nañ mu ñëwee ay serpent suba mu ñëwee leneen dañ may expliqué mais sama voisine bi mu fekkee lépp moom début bi ba fin bi nii ak mère bi ma commencé woon di faj fii nii si koñ bi parce que dëkk ma fi liggéey moo fi andi dama fi wéré rek mais dafa dem ba affaire bi and ak ñoom maire bi faj fii nii fajal na ko maladie bëre mais si sama jëmm lay nekk même sama voisine bi itam mën na la expliquer lu si xew lépp parce sama famille sama yaay dafa feebaroon mais moo ko faj am na sama cousine yoo xamante ne dañoo feebaro itam moo leen faj yu bëri daal def nag ay miracle yu bëri def nag yoo xamante ne dafa kii nit ñi mais moom bu ne bu leen waxee man léegi ma dem mission rek laa dox si woon depuis daaw ba ren maa ngi koy xaar pour mu dem mais dem te sëriñ bu ma dem mu ni ma man monu la fay affaire bi nak daf ma yem yem nañu beure mais sama fami mom ñepp man nañu témoigner ku nekk am lu mu defal lo xamanteni gis nga ko mais man dal man ma bëggatul mu nekk ci man sama jëm nak lay ñëw si man lay nekk dama son dama son trop motax ma jóg ni pour jóg pour dal wut ko ma jappalé pour ma faju ño xamanteni feebar nañ tëdd hôpital moo leen faj nii day defar ay garab nii ay def day defar ay garab boo yeewoo nga gis ay butéel ak yu kenn xamul sama voisine bi dafa amoon fibrome ba mu dem hôpital bañ ni ko dañ la war a opérer mu ñëw fii mu faj ko ba instant yi dafa dem hôpital moom hôpital loolu sa miracle na dem na ba hôpital ñu ni ko ana fibrome yi nekkoon sa biir bi te dafa waroon def opération mère bi sax léegi bu soxloo affaire bi su ma su fa demee bu amee ku a faj affaire bi day ñëw faj ko te du ma si yëg dara dara dara dara dara village ba su ma demoon da ngay gis sama kër yaay day fees dell nit su ma yeewoo damay sax ci du ma xam lu xew xaw ma lu xew billaahi li ma lay wax sama au fond de moi laa parce que xale bu jigéen laa toll naan nu ma war a toll mais itam du ma yàq sama avenir si ay ay faj yu kenn xam ak yooyu te xaw ma lu xew nettali rek laa si am nettali kese miracle yu garaaw def na ko soo bëggee mën naa la jox ay numéro téléphone yoo xamante ni danga leen di woo rek ni leen na xam nga moom ñoom maam Aysatu lañ koy wax affaire bi faj nee na maam Aysatu su ngeen soo soo paree ma jox la numéro yi danga leen di leen na xam nga maam Aysatu rek ñu leeral la lu leer nañ billaahi am samay maam balaa moo gaañu dañu bés sàngam dina kii sama doom mag bi balaa moo gaañu dafa ni day dee bañ ko war a yóbbu hôpital buñ ko yóbbu day day dama si xam dara damay yew rek ñu nettali ma parfois damay xuloog sama famille bi ma nekkal nii amul koo xamante ni toogul si boo yeew bu ma yeewoo su ma gisee nii damay jooy dama jooy léegi ba amatuma jooyukaay parce que mënatuma dama jooy ba mënatuma jooy léegi damay vie avec damay dund ak moom bu ñëwee ma xam ne ñëw na bu xamee demee ma xam dem tante naa fi xaru combien de fois ndax su ma yeewoo gis nit ñi rek du ma bëgg sama àdduna du si bëgg dara xaru kese laay bëgg mais bi ma demee ba xam ne nag léegi si sama vie la bokk dama dund ak moom mais su ma yeewoo ba si yàggul nii ba ma yeewoo léegi léegi ba may yeewoo nee na ñu ñëw na loolu moo tax tey ma poussé ndax yàgg naa lay wax mais famille bi soo waxee mu naan bul dem rajo ay dangay siiw ak ndax affaire bi du la def dara ak yooyu man naa faju nekk sama avenir instant yi day bëgg yàqu parce que man dama bëgg liggéey liggéey bo dama bëgg liggéey jàppale samay famille mais pas ay toog affaire bi nu ñëw sama ma warulee dem fenn day téye sama tànk yi du ma mën a dem billaahi wallaahi bu la neex wala mu nelaw loo ma laajal sama famille bi ma dëkkal dama sonn moo tax boobu ba léegi maa ngi préparé pour wax mais mu mel ne dañ ma tee xëy nag bi ma yeewoo ni naa jàpp si yàlla ma wax ak waa xalaas xëy na dinañ gis di ma dimbali dama leen di déglu tout le temps ba si xale bi jigéen boobu sonal seen waa dama ko déglu dama jooy gis nga soit duma ko seetaan soit bi daw se dama su ma ko seetaanee dama si sama bopp dama ko doon jooy guddi di ko jooy bëccëg mais léegi dama ko dama nekk ak affaire bi dama nekk ak moom parce que sama famille xëy na bëgg naa seen bëgg naa leen neex mais itam man sama avenir dama ko war a defar. xalaas. c'est triste c'est vraiment triste ñi ci am intérêt. ñoo naan ko bul dem rajo. moom miy dund affaire bi hmm. moom xam ne li muy dund lan la waaye ñi ci am intérêt mu leen di fajal ay affaire yu kenn xamul hmm. ñu naan ko bul dem rajo mais baan fii am na ñoo xam ni ñoom dañ koy weddi ah, li muy wax ni ñu naan kii li muy wax ni amul ay Seydina Seydina Muhammad sax am na ñu koy weddi yàlla am na ñu koy weddi fii <laughs> kundul weddi amul xam nga loo xamante loo xamante ne avant nga koy teg ba nga ko junjee démb rek mhm. dafa am ñoo xam ne am na kuy message fi neen moom lii bu ko dalee day sumee ko ba set te aussi benn précision rek bu ndaw moy ki jigen la mhm. rab bi koy dugg moy góor bu ko rab bi duggee suy wax la ci la yor voix wu mhm. pour am ñuy wax naan euh, da ngeen ne góor la te ki di wax jigen la effectivement jigen la mais rab bi ci moom mooy góor te mag la voilà donc man nak sama sama xel bu gatt man mhm. xëy mom bëgg na ni dañ ci mom mais moi je pense que euh, comme ni mu waxee na jëm dund ak mom rek parce ah. que non no jéem a du du du lu koy lor en fait no jéem a du lu koy lor parce que dafa pour lu bokkul ci lu dugg ci moom xam nga bokkul ci yow te dugg ci yow da ngay fexe mu génn xam nga xam nga baan boo seetee faj ko te rab rab dañuy rab bi mu ko ci mais da koy c'est une jeune fille bu bëgg a bëgg liggéey normal bëgg vivre y'a stable y'a donc loolu loolu li bokk li dugg ci moom bokkul ci moom bu dee rawaan buy ak di defaral nak lu ko defar lan la ko defaral ñeneen lay ya- defar yàqalu ko mais tam yàqalu ko moom mais koy yàqal kay moment bi mu koy nelawlu te war a liggéey sa place liggéey di liggéey di liggéey mu daaneel la ci sa kanami nawle mais loolu ñu koy yàqal bien sûr ah. yow soo daanoon fii ay rab lay wax man du yàqalu la da lay yàqal ñii aba lii xam naa suba lañ ko gi fekk fasu jàmbur boy bu yor fasam di ci liggéey ah jënd fasam 400 000 di ci liggéey ay nit fekk ko fa biig ci guddi daggal làmmañu fas wi làmmiñ bi gis nga làmmiñ bi moo nekk nii ci biir si noonu lii dafa ñaaw j'ai pleuré. mais pour la la lii. ah mais xaw ma kii waa gisoo kii ñëw ji jéem a ñawaat ñawaat làmmiñ bi xool làmmiñ bi. nii waaw mais la moo tax ñu. dagg làmmiñ bi ah damaa xam. fekk mu taxaw ñu ko tapé dagg. làmmiñ bi li ci dagg sax dafa gudd. li liñ dagg ci làmmiñ bi dafa bari torop torop élément eh, bi su xaajoon nga déglu booy bi wax une minute la. aji une minute la billaahi aji Diop bu ñaaw a ñaaw a ñaaw a ñaaw ñaaw ñaaw leen dagg laa ma ñu laa ma ñu ñaaw na trop trop trop trop trop trop Sénégal daal man yéemu naa aji damaa yeewu di dama doon delloo dama di yëpp daa feebar daa xam naa na man damaa yeewu ñëw dogal biir bi mooy metti moo ñëw foofu noonu fekk ñu dagg lamañ bi parce que man moom laa yaakaar quoi parce que laa yaakaar a xamna na dama ñew fim ci dagal la ñu wa ma ñew fekku mu teud non bibiri metti ma teul bibiri metti ma jënd café non ñew diko sol mo koy japp japp gebu ngi rek la ñu wad ah dañ ko dag nak wa parce que man mom la yar wal la bo yar sama kër de parce que man mom la yaakar ci la yaakar ni man ma di teud sama jabata da tol digënté jabata tol digënté parce que la yaakar ma ni bu suwa ma xeyr ma xeyr ma xeyr dama tok parce que la yaakar dama ko jëndé won ah sila la yaakar nak noonu laa toll nag comme ni rek ñaan nag dimbal waaw jotewu ma ak kenn nag wax dëgg te yàlla jotewu dafa si dama yaakaar ne affaire liggéey la dafa ni yëpp daa xaw a tawat fan yëpp daa tawat même démb rek si guddi gi rek daa feebar quoi ma nga sama soxna si pour mu dem jëndal ma café pour man biir bi day metti pour mu dem jëndal ma café mu dem ne amul café moo jëm tëli tëli ba dem buti café ñëw di ko sol fekk laamin bi wadd fekk laamin bi wadd ni laa toll nag jotewu ma ak kenn nag dama yaakaar ne affaire liggéey la rek yaakaar naa affaire liggéey liggéeyal nag mais maa ngi ñaan dimbal ku mën dimbal rek man instant maa ngi xëy ma dama fenn maa ngi tëdd maa ngi tëdd sama biir néeg dama fenn. xalaas. xale xale bu ndaw dajale ba jëndu fasam quatre mille takk jabar jabaram nekk en état nga ñëw fekk aw fasam bi muy liggéeyee di ci am dix mille xaw ma quinze mille francs par jour nga dagg làmmañ ko. fas yi ñuy jéem a ñaw fas fas yi mu yàlla tere yàlla tere xam naa ne soo moytuwul ñàkk ci deret dafa bari. non man du ma wax ma sax kii wu xaalis ak kii liggéey gi mais fas woo xam ne sequl ak yow dara fas wu la deful dara. waaw nga fekk mu taxaw nga xam ne am na ku nga dag non mais. soit yàqal nit ki la ou bien nga affaire mystique. te booy bi dégg nga ko wax na affaire ku ku ko mën a dimbali pour mu amaat yeneen fas fas fas wii ma xam ne ma yàlla te damay ragal. moo kii te jabar te nañ bàyyi ñiy saboté ñiy liggéey ci fas ak mbaam am na ñoo xam ne ci mbaam la ñu liggéey ba tabax ci kër yor ci kër ñoo tane ki ñi ci koñ bi ñu yàcc ñu yasar mënulul waa seen waa kër dara. allo présidence.